إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk julit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala nga la way julit bul fàtte ne ak loo mën a nekkee ak foo mën a nekkee del sant sa boroom ci xaal bu mu mën a doon ñi ngi seede na moom dong moo yeeyoo ñu koy jaamu ñi ngi seede na yonent yàlla muhammad mooy jaam bam tànnoon yónni ko ci ñun mu war ñoo jàngal naka lañuy jaamoo suñuy boroom mbokk fan yi ñuy dund ñi ngi dund loo xam ni mboolem ñuy dund tey ci kaw suuf musuñoo dund lu ñu mel bu ñu xoolee it néew na ñuy gis lu mel ne moom ci histoire donte na daana am mbokk mooy lii ñu yàlla nattoo tey muy lii di virusu corona corona boobu nga xam ni tey àdduna bi yépp mooy seen programme numéro un mboolem information yu ñuy wax moo ci jiitu moo ciy mujj loolu nag mbir la moo xamee ni nii jullit moom du nekk ma riirandoo jullit du nekk ma waxandoo waaye lépp loo xam ne nii dal na ci dundug jullit la muy jëkk a bàyyi xel waaw lii moom diine ji may dund nan la ko gisee ma lii moom diine ji may din dund lan la ma ci digal loolu mooy position jullit coow bari na lool ci virus corona lan mooy sababam fan la jógee ak yeneen yu bari yiñ ca wax ala kulli xaal yow jullit xamal ni suuf si ñu nekk suufa si yàlla la amul lenn lu fiy xew lu dul lu neex yàlla abadan lépp ci loxo yàlla la nekk yàlla moomu nag moo ñu waxoon ni mboolem yonent yim jiite yim yónni woon seen xeet ba ñu jàddee yoon wàcc na ci ñoom ay lor lor yooyee ngir loolu mën leen a delloo gannaaw seen xol ya ba mu woowee suñu borom yàlla changé ni indi ay xéewal ba ñoom liñ daan wax àdduna nii rek la sunu maam yi dañ daan am ay nattu ak ay xéewal suñu borom nee na ma jàppe leen ci mbetteel borom boobu moom asamaan ak suuf nee na nit ñi buñ jaaroon fi ma neex danaa ubbi barkay asamaan ubbi barkay suuf waaye maadaama dañoo doon ñu bew jàppe naa leen ci lañ doon jëf mbokk heure bu désordre ami ci kaw suuf heure bu njàqare tiis ami ci kaw suuf loole mooy doomu aadama yi jàdd nañ yoon ba leen yàlla tëraloon borom boobu nag ni wala nuziqannahum min al azabi al adna duna al azabi al akbar laallahum yarji'un danaa indi mbugal ci dunduk àdduna gi avant mbugaluk àllaaxira ngir nit ñi dellu gannaaw ñi julli ci jàkka ji tey ci fajar xam nañ ni imaam loolu la ñuy jiite te mooy yonent bi alei salaatu wasalaam fajar ajjuma gu nekk daana tari suratu sajda ba aaye boobee nekk suñ borom it loolu la ñuy wax ni zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas li yuziqahum bada allazi amilu laallahum yarji'un yàqu gi day bari na ci géej gi bari na ci jiiri ji lan moo ko def mooy jëfi doomu aadama yi su ko defee danaa indi nattu teg leen ngir ñu mën a dellu gannaaw mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feebar yi bii ñu dal tey ñu duppee ko corona nga xam ni mosuñoo xam lu mel ne moom depuis quatorze siècle la ñu waxoon ni amul benn xeet boo xam ni daan feeñal ñaaw tiif te ñaaw tiif buñ ko boyalee rek dana ëmb lépp waaye ma ngay gën a jublu ci ak njaaloo duñu feeñal ay ñaaw tiif biiral ko lu dul suñu borom dana wàcc ci ñoom ay épidémie ak i feebar yoo xam ne seeni maam xamuñu ko woon mbokk jullit jamono bi ñuy dund tey li xew ci kaw suuf musul xew ci kaw suuf ñun ñuy dund jamonoy liberté totale ñun ñuy dund jamonoy faalewuñu yàlla li ñu neex la ñuy def mooy droit sexuel ku ne am na droit am ko xatta xale yu ndaw yi góor demal si yëg góor jigéen ak jigéen demal si yëg bàyyuma loolu yi nga xam ne dañu ko tëral tey yemuñu ci tëral ko bal dañ koo def benn droit boo xam ne mboolem ñi dëkk ci kaw suuf di bañ loolu dañoo war a def ñoom ay pression ngir ñu nangu loolu mbokk loolu mooy défier suñu boroom jalla waala waaye mbokk mooy défier mooy dëkk xeex koo xamul mbokk yàlla moom suuf moom moom Amérique moom moom Chine tey jii dañuy gis ne dëkk bi nga xam ne moo ëpp croissance ci àdduna bi dëkk bi ëpp ay nit ñu ko dëkk ci àdduna bi dëkk bi ëpp ak xereñe ci àdduna bi buñ ko waxee xel yépp dem ci Chine Chine googu fa la yàlla wàcce balaa bi nga xam ne tey moo jaaxal àdduna bi yépp loolee kon day dëggal la suñu borom yàlla subhanahu wa taala jaarale woon ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko wax it ci beneen xadis boo xam ni dañuy doomu aadama yi day du ñu wan gannaaw njàngaleem borom bi lu dul yàlla dana baril ci ñoom ak dee tasaare ci ñoom rayante tasaare ci ñoom ak dee tey jii mbokk coronavirus barki dembale fi ñëw ñam rey ay par junni lañ leen di compter léegi loolee mbokk di mbir moo xam ni natt la bu yàlla jàll waala wàcce na am yow da nga ne ma mee coronavirus bi dalul ci yéeféer yi kese dalul ci saay-saay si kese loolu it la ñu yàlla digoon suñu borom mu ne wattaqu fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum xaasa moytu leen fitna bu ñëwee du dal ca ñu tooñ rek waaye suñu borom ci xikmaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégaloon na xeet bi nee na am na benn feebar bu bon bu ñuy wax peste lu koy wax taa'uun yàlla day dana koy wàccee léeg-léeg ci jamono dana doon mbugal bu tar ci àdduna ñel yéeféer ak la koy xaar allaxira dana doon it la nga xam ne mooy dee fi sabilillah muy shahada ñeel ña nga xam ne mooy jullit ñi loolee mbokk maa ngi fàttali ne pes boobee ca jamonoy sahaaba ya ca jamono Omar ibnul Xattaab nekk xalifa yàlla wàcc na ko woon ci siri gi ngeen dégg tey la fa dee ci sahaaba ak ña nga xam ne mooy ay jullit ëpp nañu cent mille peste boobu moo yóbbu abu obayda amir ibnul jarrah ban tuddee jumaa jee ci 26 peste boobu ci la bilal ibnu rabah faatu peste boobee ci la muaz ibnu jabal faatu loolee kon yonent bi alei salatu wasalaam ne épidémie yu mag yi nga xam ne yàlla da koy wàcce pour mbugal bépp jullit boo xam ne dal na ko ca nag moom loolee day nekk a considéré ko moom dafa dafa dee fi sabilillah looloo tax jamono ji virus corona di tasawro ku nekk ci ñun bokk na la ko jëkk a war mu nemmeeku waat pas-pasam digganteem ak boroomam ba bokkul ci ñi koy bokkaale nemmeeku waat taxawaayam diggante ak yonent yàlla ba bokkul ci ñi nga xam ne dañoo mooy la nga xam ne mooy sunnaam loolee mbokk da ngay gis ku nekk ci ñun loolu war na ko gannaaw bi it nga gëm nga gëm ne amul benn musiba buy dal ci kaw suuf lu dul ne ci ndigalu yàlla la nga amoon jabar ju am corona taxuta corona jëkkër ju am corona taxuta corona bokk ak nit ki benn lal taxuta corona lu tax mooy yàlla jalla wa ala moom mooy dogal la ko neex ca li la nar a rey yàlla dogaloon na ko depuis avant muy bind asamaan ak suuf juróom fukki junni at yonent bi alayhi salaam waxoon na ko ibnu abbas xamal ne adduna yépp buñ daje woon ngir bëgg laa aar duñ la mën a aar lu dul ci lu yàlla dogal ci yow buñ daje woon nag bëgg laa lor duñ la mën a lor lu dul yàlla dogaloon ci yow ndax yàlla bind na dogal yi muy jaarale ci yow këyit ya wow na yëkkati nañu xalima ga lii mbokk la jullit war a gëm doo dee ci sa dee jotul doo dee ci sa wërsëg matul lii bu ko jullit xamee ndax kon dañu naan ah kon mën naa dem rek bu ko defee lu ma dalit ñu xam ne yàllaa ko dogal déedéet mbokk jullit suñu borom daa am lu mu féetewoo gannaaw ba mu am lum la sant lam la sant mooy pexe yi ma la may yow doomu aadama jëfandikoo ko ngir sàkku ji wërsëg waaye nag nga xam ne yàlla muy wërsëgal pexe yi ma la may yow doomu aadama jëfandikoo ko ngir mucc ci feebar jëfandikoo ko ngir faju waaye nga xam ne yàllay tege feebar yàllay faj waaye pexe yi moom def ko looloo tax mbokk pexe yooyu jullit war koo jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan lañ ca waxoon mu ne bu ngeen déggee épidémie am na benn place nee na yow mi nga xam ne dangaa nekk ca place ba ngal la waaye bul demeti bul déplacé wu yow mi nga xam ne nekkoo fa woon bu fa dem mbokk yéen ñiy suivre information de par le monde yéen ñépp xam ngeen corona bi yàlla nga ko wàcce ci Chine wàcce ko ci benn ville la waaye gannaaw ba leen ngay dégg ah am na benn passager bu jóge Chine yóbbu na ko Allemagne keneen France keneen fa feneen ba tey Sénégal gi am na benn français bu ñëw indi ko fi ñaka dolli benn ko jóge Italie indi ko fi kon du ne yàlla dafay taal corona fii taal corona fii déedéet benn place la woon léegi nag ña fa nekk ñoo ko jël di ko tasaare loolu it suñu yeneen mi yàlla yónni woon ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni wu ma lu dul yërmaande ñeel nit ñi yàlla xamaloon la ko lu nit ñi xamul mooy fu am benn foyer épidémie am ña fa nekk bu fa kenn génn loolu buñ ko defoon mbokk kon corona bi mën na am ville ba mu feeñ ci Chine rek lay yem. loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax am maa nag mbokk corona dem na tasaaroo na rasul sallallahu alayhi wa sallam daanuñu ci wax ni yow mi nga xam ni daf la dal di jullit muñal muñ ko rafet boo ci dee da ngaa shahid fi sabilillah yow mi nekk ci dëkk ba bul génn sa taxawaay boobu jihaat la ribaat la mi ngi noonu ci muñ gi nga muñ dogal yàlla toog ca dëkk ba amma yow mi nga xam ne danga koo daw mbokk kooku am na bakkaar bu toll ni ki daw bi si guerre ki nga xam ne corona mi ngi fii épidémie mi ngi fii ba pare moom mu daw génn fa loolee bu dee ci dëkk ba mu nekk la loolu nag ñu bàyyi xel bu baax corona nekk lu woon ci Chine bu nekk dafa am ay dëkk yu mu nekk bu la fekkee ci dëkk ba bur génn loolu la islaam jàngale loolu mbokk da ngay gis ne moom la islaam wax ci wàllu googe mbokku ab jullit ci kanamu coronavirus dana am ay jàngat yu bari yum ci jàngat jàngat bu njëkk bi wax nañ leen ko mooy nga gëm ne suuf si na am am na téeméeri président ak juróom-ñeent fukk ak nangam waaye xam leen ne benn buur la am muy suñu boroom mbokk kaw suuf du Trump mooy dogal wala Poutine kaw suuf borom asamaan ak suuf mooy dogal lu ko neex corona bi ci moom lu jóge corona bi moom danga ko mën a yëkkati loolu nag moo tax yow jullit da ngay bàyyi xel ñi nga xam ne dañoo fittirlu ci kanamu borom bi jàpp na ñoom avancé nañu ba soxlaatuñu digalul yàlla erreur yi nga xam ne moo leen di dal mbokk boo demoon tey fa bëri ci àdduna bi sunu mbokk jigéen yi di muuru coono bu rëy lañ leen di teg yàlla dogal ne démb rek maa ngi waxtaan ak benn soxna bu nekk Italie doon dund coono yooyu waaye mu ne imaam tey boo ñëwoon suñu dëkk bi da nga yéemu ci yàlla nee na góor ak jigéen ku ci génn ay bëtam kese ngay gis ñooñu doon xeex niqaab ñooñu doon xeex muuraay tey ñoom ñépp muuru soli gan ku ciy génn ay bëtam ngay gis loolu góor ak jigéen muy wañu ne kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala ba muy wax jigéen ñi jullit ñi muuru leen su ngeen muuroo kenn du leen lor sadaqallahul azim yàlla wax nga dëkk ba da ngay gis yenn ci journaux yi nga xam ne dafay génn ci France di wax ne nekkate yoote jigéen ñi def niqaab nekkate ñoom ñoo rawoon jamono ndax amul lu gën a mën a protéger nit ñi tey ci feebar bi lu mel ni ñii nga xam ne dañuy daje ak ñoom ci mbedd mi ñu muuru def niqaab ba sol ay gants loolee mbokk dañuy gis ne kon njàngalem lislaam jamono du ko raw mukk bal lislaam moo jiite jamono ndax borom jamono moo ko tëral gannaaw loolu it mbokk jullit lii di coronavirus ànd naag feebar waaye ànd naag lu gën a garaaw feebar li gën a garaaw feebar mooy tiitaange gi mu wàcc ci kaw suuf te suñu borom bi muy lim nattu yim ñuy nar a nattu lam jëkkee mooy tiitaange wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf wal juu wa naqsin min al amwaal wal anfusi wa samaraat wa bashiri saabiriin danaa leen nattu tiitaange tey àdduna bi yépp a tiit demal tey ay dëkk yu mel ni Italie am na ci ville yoo xam ne waxumaa génn ca dëkk ba waaye sa kër sax doo génn lu dul nga ànd ak justification boo xam ne bu dul looloo boo tegee sa tànk ci tali bi policier jàpp la trois mois de prison lañ lay tëj ndax gaa yi ci tànge mën na paase loolu fitna la boo xam ne kenn xamul fan lay mujj conséquence économique yi mu nar a def ci adduna bi kenn xamul fan lay jeexi loolee moo ko kon tiitaange yi gën a màgg ci tiitaange tey yàlla wàcc na ko ci kaw suuf ca loolu lañu yàlla digoon gannaaw ba la ñu suñu borom wax la nga xam ne mooy xiif wàññi seen alal naqsi min al-amwaal wa samaraat la shakka ne perte bi muy jur tey bourse ci àdduna bi yépp ni ñu ngi chute mooy kon la yàlla waxal mi ngi koy def amma nag wax nañ ko ci début xutba bi jullit ak yéeféeri ci bokk waaye lan mooy seen différence mbokk jullit moom day dellu ci yàlla wa bashiri sabirin béggalal munkat yi nga xam ne ñoom bu nattu dikkee ñu ne ah ñun kat inna lillah wa inna ilayhi rajiun ñun yàlla ñu moom mooy dogal ci ñun lu ko neex ci yàlla la ñuy dellu ca mooy lépp lu mu dogal ci ñun neex nag naqari suñ ko muñee pay gay jóge ci yàlla day doon loo xam ne mooy gën a màgg natt ba loolu tax ñu mel noonu suñu borom tegale leen ñeenti mbir mbir bu jëkk bi borom bi mu ne dana leen bégal bashiri sabirin gannaaw ba dana julli ci ñoom mooy ñu mel noonu suñu borom mu ne ulaika alayhim salawatu min rabbihim yàlla dana leen tagg gërëm leen wa rahma yàlla dana leen yërëm wa ulaika humul muflihun ca ñooñu ñoo am ak njub muy hidaaya looloo tax mbokk jullit heure bu nekk ci fitna fitna ba fitna bu mu mën a doon day doon lu ko yëkk ci ay darajam ci boromam day doon luy cuub xolom day doon loo xam ne nii dafay kay jegeel la nga xam ne muy boromam tegg ci moom lépp loo xam ne ak rëy la kon loolu mbokk lañu suñu borom di muy différence bi nekk ci ñun ak yéeféer yi loolu moo tax ba nga la way jullit xamal ni corona leneen lu dul corona xamal ni jaam la ci jaamu yàlla yi suñu borom nee na wa ma ya'lamu junuuda rabbika illa hu yàlla mooy moom armée asamaan ak suuf walillahi junuudu samawati wal ard armée asamaan bi malaaka yi yàlla ko moom armée suuf yàlla ko moom yéen ñépp mokkal ngeen alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil keroog ba nga xamee ne benn empire bu mag di Éthiopie gi nekkoon empire ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël nañ la nga xam ne mooy ñay wu rëy ak armée bu rëy ne dañuy mabbi kaaba ga suñu borom yàlla wàccewul ay malaaka lan la yàlla wàcce benn armée ay picc ay picc yoo xam ne ñoo leen tiim dóor leen ay xeer xeer yooyu foq seen bopp ya foq seen biir ya loolee mi nga noonu arsala alayhim tayran ababil naka noonu it la yàlla amee ay virus virus yoo xamee ni nii laboratoire da nga ko mën a gis loolee mbokk dañuy dund di màgg di dee comme ni nga ni nga ko xamee ay mbindaafan lañu kenn mënu koo bind ku dul borom ku dul borom bu yàlla moom rek mooy alxaaliq xaaliqu kulli shay kon virus boobu ci yàlla la jógee yàlla boobu moo ko jox ay directive du laal lu dul ku neex yàlla ku mu dugg ci yow kenn donga la mën a musal ku dul yàlla ay sabab rek lañ mën a def tey état yi gën a mag ci àdduna bi Allemagne Italie Chine ay téeméeri nit dañuy ñëw ñu faj leen am ñu dee am ñu dund lu waral loolu mooy mbir yi nekkul seen loxo mbir yi mi ngi ci loxo yàlla looloo tax ba yow jullit nga la waay xamal ni heure bu feebar yi ñëwee am na ay wareef yi la war wareef bu njëkk boobee mooy nga xam ne suñu borom yàlla day mooy moom ay jaamam di dogal ci ñoom lu ko neex loolu moo tax ba del ñaan yàlla musal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon ñu ne koo xam ne nii day daa xëy ne auzu bi kalimatillahi tammati min kulli sheytaanin wa hammatin wa min kulli aynin lamma daanuñu ñaan ñuy muslu ci ne ay man de maa ngi làqu ci gannaaw kàddu yàlla yi ngiree mucc ci bépp sheytaan mucc ci lépp lu ànd ak dangar mucc ci loo xam ne nii ay bët la yuy lor bu ñu delloo ci njàngoom lam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanuñu jàngal ni ki xëy suba wax bismillahi lazi la yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim thalaatha marrat lam yadurruhu shay'a kaddu yooyu ma wax bismillahi lazi la yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim nee na ki xëy suba wax ko dara du ko lor ba baa guddi di jot boo ko waxoon guddi it dara du la lor ba baa suba di jot yonent bi aleyhi salaam daan nañu wax ne amul kenn kuy dem wàcc ci benn place place boobee ba mu ca wàccee mu ne auzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq mi ngi noonu lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi min manzilihi zalik amul benn place booy dugg amul place booy dem ba nga yeggee nga ni auzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq maa ngi làqu ci gannaaw kaddu yàlla yu mat yi ca ayu la bind lu dul ne dara du ko lor bisub keroog bisub keroog ca place boobee mbokk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci noonu it lañu daan wax ñu bari di muslu ci feebar yu bon yi bokkoon na ca loolee allahuma inni auzu bika min albarasi waljunuun waljuzaam wa min sayyi il asqaam yàlla yàlla ñu musal ci lépp loo xam ne nii ak ngaana la akuk ndof la ak ngaana yay dagg ay cër ak bépp feebar boo xam ne feebar bu bon la lii mbokk da ngay gis yenent bi da ko daan def daanañu jàngal itamit ne képp koo xam ne nii gis na aji ku feebar dal nga ne man day maa ngi sant yàlla mi ma musal ci lim la nattoo gëna li ma ci lu bari ci ay jaamam feebar boobee du ko dal natt boobu du ko dal mooy alhamdulillahi alladi aafaani mimma btalaaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman xalaqa tafdila maa ngi sant yàlla mi ma musal ci natt bi mu la teg ba pare gënale ma ci lu bari ci ay jaamam nee na feebar boobu du ko dal mbokk waa ji nga xeem na feebar ba da koo dalit ngal la way muñul dellu ci yàlla fàttalikul jaamu yàlla ba ayub alayhi salaam ba ko yàlla tegee nattu def ne rabbi massaniya dur wa anta arhamur rahimin ay yàlla lor day wàcc na sama kaw ci yow yaay ki gën ci ñiy yërëmaate loolee bàyyi ko xel bu baax gannaaw ba bokk na loo xam ni danga ko war di ñaanal sa bopp soo demee ci malaat nga ñaanal ko ko allahuma azhabil baas rabba nnaas ishfi anta shaafi laa shifaa ila shifauk shifaan laa yugaadiru saqama ay yàlla yow mi borom nit ñi nga la waay saafaraal yow rek yaay yaay saafara sax saafara du desal lenn loo xam ne nii luy lor la loolee mbokk da ngay gis ne ba tey ci lu ñu war a bàyyi xel la yonent bi aleyhi salaam it daanañu jàngal amul kenn kuy seeti benn malaat te malaat boobu yàlla dafa dogalul woon ne lii moo koy nar a rey mu daal di ne man day asalullah al azim rabbal arshi al azim an yashfiyaka maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi borom arash bu màgg bi ci mu saafara la mu wax ko juróom-ñaari yoon lu dul yàlla subhanahu wa taala dana ko saafara ca la nga xamee ni nii moom mooy feebar boobee mbokk kon lii benn tënk la boo xamee ne nii jullit ñépp nañ ci bàyyi xel xamal ne suñu borom day suy wàcc ay nattu daa bëgg jaam yi toroxlu ci suñuy xol ñu won yàlla ne ah kay yàlla nangu nañ ñu ñun ñoo tooñ nangu nañ ñu lii nga wàcc ñoo ko mérito waaye nag yàlla yaay borom jéggal ak yërmaande yàlla yàlla nag ñu jéggal yërëm ñu loolee képp kenn ci ñun da ko war a yëg mbokk ci jamonoy coronavirus bi ndax kat moom mi ngi ni ci kaw suuf yàlla yëkkati googoo xamagoo ndax danga ci mucc wala sa njaboot dina ci mucc kon ñépp ñoo war a ànd di toroxlu ci suñu borom toroxlu boobu nag mooy li ci gën a am solo ak ñaan nañ def fii wàcc fi ay kaami rek ay nangam ak nangam mbokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam lam daan jàngal sahaaba ya mooy ñu ñaan ñu toroxlu ca loolu rek la ñu yàlla wax danaa leen teg ay nattu laallahum yatadarra'uun atadarru mooy lan mooy mbote bi nàmp na muy demee ci suufu xar mi sukk yëkkati bopp bi di nàmp ngir la koy jëriñ ci yaay ji la jóge naka noonu natt bu amee jullit bi dafa war a jël xolam delloo ci boroomam sax ci ay ñaan foo jullee ba pare bul fàtte mukk ci say julli ñaan yàlla ay coronavirus bi yàlla yàlla na ko yàlla na ñu ci musal ca teggi ko ci kaw suuf loolee képp ci ñun la war fépp foo jullee nga ñaan ko lii ma leen tënkal ci ay ñaan yey nañu jàng ko doonte ne suñu borom it may nañu ak tënk goo xam ne comme naka yaay Aïcha waxe yonent bi aleyhi salaam day bari woon na ay musluwaay waaye nag la ëppoon ca lam daan musloo nga xam ne daawu ko bàyyi gannaaw moom la ñuy tëdd al muawizaat mbokk yàlla may nañu ay anti yoo xam ne nii ay vaccin yoo xam ne nii day aar ci lépp mooy qul huwa allahu ahad qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas jàngal leen seen njaboot ku ci julli fajar ba pare na ko jàng ñetti yoon ku ci julli timis ba pare na ko jàng ñetti yoon loolee da ngay gis ne abdullah ibnu xabar nee na ñun day masa ñoo tiit jaaxle ci jamonoy nawet bañ demee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lim ñu wax mooy jàng leen qul wallahu ahad qul a'udhu bil falaq qul a'udhu bin nas ñetti yoon dara du leen lor lii tamit bokk na ci sabab yu gën a màgg yoo xam ne jullit da koy gànnaayoo lii mooy sa warugar amma ba feebar ñëwee na nga xam ne lii mooy dogalu yàlla def nga sa warugar yàlla natt na la nga delluwaat ca sabab bu mujj ba ca mooy ñaan yàlla mu teggi ko ñaan yàlla mu defal la ko jàmm bu yàlla dogalee nga dee ci insha allah da nga shahid bokk ca ñay kawe ci àddina yi kawe ya ñu ngi ñaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf yàlla nañu yàlla teggil coronavirus ci njëggalam ak yërmandeem yal na yàlla musul ci jullit ñi ci lépp loo xam ne da leen cay lor bépp jullit bu mu ko teg yal na ko saafara ci jàmm bépp jullit bu ca faatu yal na ko defal firdaws mi wàccu waayam yal na yàlla wërsëgal ñu tub gu sell ñu dellu ci moom toroxlu gu sell gu ñuy delloo ci moom yal nañu yàlla boole ñu yaakaar ko ba ñu yaakaar keneen ku dul moom sukkandiku ci moom ba ñu sukkandiku ci keneen ku dul moom allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين